ɗum noon ah, banndiraaɓe julle musiɓe tedduɓe yeeɓooɓe safina tv to ngonɗon ene ngonirɗon eɗen jokki golle e oo ɗo kiide aset mo ngannduɗaa ko 6 mai 2023 ɗo e kuñe kaari e tat seeko mouɗo fouti radiallahu taala nu ceerno zakia ousmane eɗen ngardi ɗo e garan frére meɗen eɗen ngardi ɗo to baŋnge média e to baŋnge galle ceeno yaro ngardi ɗo ne geɗe keewɗe janngimɓe en no foti yaare eno foti wonireede woni musi abdoulaye bari ɓooyno arde kadi e kuña kaari en arda délégation ceerno yaro o yii ceerno yaro hakkude mum e wuro ngo yidde wuro ngo yiɗi ceerno ene jaɓɓoto ceerno kono mboɗo sikki ɗo o yiiɗo guila wayaani ni guila caali kiiɗo dara guila ngal ɗo digiral ino wano nden e ha hannde ma wood ko haalan en e ɗemgal wolof noon ma wood ko haali kadi e puɗar ceerno zaka ousmane bisimilla jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen duyu di leen sant di leen gërëm ñëpp ñu xam ne yàlla defal leen ñuy seetaan Safina TV alhamdulilah rabbil sant yàlla baax bu ngeen gisee kanam bi xam naa senegal ñëpp a ko ràññee incha allah taala ñu koy ñaan yàlla na ko yàlla yokk mu gën a gudd mooy monsieur Abdoulaye Bari mu seen Bachir lu wax léegi si wàllu pulaar fii ñu taxaw fii fii mooy dëkk bi ñu wax Kougnikaar si biir Mali xam naa moom dina si ñëw moo gën a miin affaire yi moo gën a mu xam affaire yi léegi li ñu koy laaj rek moom ñëw na fi plus de vingt ans mu ñëw mu ngi ànd ak chairman chair Yoroban mu ngi ànd ak délégation yu bëri moom ñëw na fi laata euh, lii mbaar mi ñu koy defar am yu bëri fekk na ko fi am na yoo xam ne day dem euh, si balaa ngay dugg dëkk bi am na lu fa nekkoon encore si àll bi am lu mu gis foofu lu bëri moom yàlla def na may na ko ba dem ba gis bëri bër bërëb yëpp ñun nag si bër yu ndaw rek la ñu gis léegi dañ koy laaj ci eh, moom Abdoulaye Bari nañu wax bu mu dalee ñëw fii ak léegi nu mu gisee ziara bi commencement bi ak tata bi nu mu taxawoon mu commencé dem ndànk-ndànk am ñoo xam ne am na côté boo xam ne jug nañ ñu ngi koy defar léegi ñu koy laaj dañ koy jox moom suñu sëriñ la si wàll média xam ngeen ñëpp ñëpp xam nañ ko dañ koy jox moom mu waxal ñu tuuti si wàllu français am ñu koy déglu mu ñëw si pulaar mu ñëw si wolof mu tëjal ñu mbir yi monsieur Ablaye jërëjëf sëñ Bari waaw jërëjëf euh, Zakaria Ousmane Euh, man li may njëkk a wax du ma wax en tant que sëriñ nekkuma seen <laughs> nekkuma sëriñ euh, ci wàll média ak lu damay jàng ba léegi waaye euh, damay wax plutôt ci wàll koo xam ne dafa sopp Cheikh Omar al Fouti ndaxte Cheikh Omar fuuti ñëpp xam nañ ne lu mu représenté ci Sénégal ak lu mu représenté ci Afrique li mu représenté ci Sénégal ñëpp xam nañ ko ci biir Sénégal amul benn kër diine boo xam ne da nga fa dem te loxo Cheikh nekkul ci biir feeñu fa ndaxte jëflante na ñëpp euh, am na lu mu jëflante nit ñi ay ñaanam a ngi dox foofu ndaxte lépp mébétam la woon pour li nga xam ne Sénégal bi ñuy dund tey ñëpp ñee ko ci àddina ci dal bi ci comportement yi ak ci euh, euh, xéewal yi yi fa yàlla di indi donte ne Sénégal ëpp ressource ci dëkk yi yi ko wër yëpp waaye loolu moo doon mébétam bu njëkk moo taxit euh, mu doxoon biir Sénégal lépp amul benn région boo ñëw boo xam ne duñ la wax Cheikh Omar jaaroon na fi ba nga xam ne ñi fa dëkk dañu yaakaar ne Cheikh Omar fa rek la mës nekk boo demee Ndar ñu wax la ko Fuuta moom dama ko dama ko wax fi mu juddoo boo ñëwee ci Jurbel boo ñëwee ca euh, euh, booru booru booru jam booru jas yeeg yooyu boo dem Mbuur ah tubaab jalaaw ba dem ca ca Gàmbi ah, boo demee euh, Gunjur nga dem Casamance nga dem côté Tamba Bundu nga wàcc dem Guinée donc loolu yëpp ñooñ loolu loolu la Cheikh Oumar doon moo doon doxam mu jóge Sénégal dugg si ay dëkk yu bare bare ba bokk fii ci dëkk bi nga xam ne fii la ñu nekk tey muy Kouñakaari nekk ab dëkk boo xam ne mu ngi ci 60 kilomètres après Kaay boo jógee Kaay diggante frontière Sénégal ak Mali ba Kaay 93 kilomètres boo jógee foofu nga defaat 60 kilomètres egg fii ñuy wax Kouñakaari nekk ab dëkk boo xam ne mu ngi polariser lu ñu naan jomb ko jomb ko di juróom-ñaari fukki dëkk ak juróom-ñaar euh, fii xaw a mel na nekk capital ba waaye mu nekkoon fii defoon fi nag moom Cheikh Oumar ab benn tata boo xam ne euh, ñi mu àndaloon doon xeex pour diine gi taxaw euh, fii lañ nag fii moo nekkoon maanaam seen camp ab camp la. boo xam ne moo ko defar ci loxoom mu nekkoon mu jëloon nag koo xam ne itam doomu Sénégal la boo xam ne Samba lañ koy wax jóge ca Ndar nekk ab euh, maçon moom la indi woon fi boole ko ak lu toll ci junni nit ak ñaari téeméer mille deux cent personnes ndaxte koñ bu nekk dafa amoon ñetti téeméeri nit yu ca doon liggéey ñoo ñoo taxaw li fii mu doon at bi nga xam ne mooy dix-huit cent cinquante-cinq at bi nga xam ne moom la Seydi Hadji Malick Sy gane àdduna at bi Seydi Hadji Malick Sy juddoo gane si àdduna at boobu la Cheikh Omar jaar fii taxawal fi tata bi loolu la mu ëpp téeméeri at ak li topp ak lu bari léegi nag dafa am loo xam ne ñun nekkul bari woon ko di def di saytu di aar li nga xam ne moom mooy symboliser suñu histoire moo tax tey bu ma fi ñëwee gis tata bi nga xam ne tata bi dafa commencé woon di yàqu waaye ba ñu tàmbalee ziyaara bi comme ni ko Bachir Sow waxee depuis ñaar fukki at ak ñett 2001 ba 2023 ñaar fukki ak ñaar euh, ba ñuy dekkalaat euh, tata bi ba nga xam ne tata bi dootu réer mukk nga xam ne histoire da koy jàpp ba nga xam ne sunuy doom sunuy sët sët sëtaat waaye bu ñu ñëwee danay xam ban liggéey la Cheikh Omar def ci jamono yooyu ba tax sunu dëkk yi mel du ñu mel nii donc euh, ba comme ni ngeen ko waxee bañ koy tàmbali 2001 ay mbaar la yoo xam ne ay ay mbaaru ñax lañ ko doon defee waaye tey li si gën a am importance lii loxo benn euh, euh, partenaire yu nekk ca bitim réew dugg ci lii ñi nga xam ne ñun la africain yi ñu ñoo ko defal sunu bopp parce que pour sunu histoire ñoŋ loolu moom loolu lu jar a jàpp la parce que histoire bu ni mel. war te réer donte ne comment war nañ ko sax jàngale ci biir ci biir école yi nit ñi xam sunu bopp xam liggéey bi nga xam ne jotoon nañ ko def moom nag soo ñëwee fii nag gis lii tey day sedd da ngay xam ne wax dëgg yàlla sedd na xol te liggéey bi nga xam ne ñu ngi ci doon jublu di ko tàmbalee di ko def am na jeexital te ci kanam la jëm liggéey boobu nag am nañ ci itam kontaante bu baax ñi nga xam ne ñoo ko sooge woon ci njalbeen ci nga xam ne ci moo nekkoon ca bopp di Thierno Hamidou ci commencement bi di Thierno Hamidou Bane di ci liggéey nag waaye nag buggul feeñ ci mbir ma nekk ca ginnaaw day ñëw liggéey liggéey bi dam nekk ca gannaaw pour rek la ndaxte lan moo ko euh, soxal rek mooy liggéey bi taxaw liggéey bi mooy lan comme ni ma ko waxee ñu ràññee liggéeyu Cheikh Omar xam ne ñun itam ñun nit ñu ñuul ñi ñun jullit ñi nga xam ne ñu ngi côté bi am na suñu suñu suñu nammee def dara liggéey danañ ko mën a def parce que li ñu def nii ay cent cinquante ans ci ginnaaw loolu war ñu ko bàyyi mu naxasaay te war na servir d'exemple pour que ñun tamit mu servir ñu exemple ñu mën a avancer loolu euh, mooy vraiment euh, euh, li nga xam ne mun nañ ko def jàngat ci fii alhamdulilahi rabbil alamin tata bi nag dafa amoon ay ndox boo xam ne mu ngi koy commencé di di attaqué ci wàll penku bi waaye fi mu nekk ni yàlla ndaxte ndox yi da doon ñëw di dal ci miir bi waaye yàlla def na itam xam naa ne jot ngeen ko filmer yàlla def na tamit ñu def ko liggéey bu am doole boo xam ne commencé nañ ko te am nañu yaakaar ne liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko di ko taxawal dana tax ba mu gën a aar définitivement euh, te tata bi bu boobaa après ban liggéey mooy des mooy ñu defaat tata bi defaraat ko comme ni mu meloon ca njëlbeen. ba nga xam ne dana képp ku fi ñëw da nga suñ la waxatee tata Konakaari da nga mën a ñëw gis ko te du tat Cheikh Omar def na yeneen ñetti tata ci biir ci biir ci biir gomb ko yoo xam ne itam danañ ko mën a dekkalaat ak yeneen i li commencé nii waaw comme ni ñu commencé nii ak yeneen liggéey yoo xam ne jot na ko def ca ca Guinée am na ñu bëri xamuñu ne Cheikh Omar zaawiyam bu njëkk ca Guinée la nekk dingiraay dingiraay ci Guinée Conakry la nekk foofu la nekk mu defar ko te ba léegi zawaye boobu mu ngi dox am na yeneen yoo xam ne def na ko fii ci Koñakaari ci ci Nioro di Sahel am na yoo xam ne mu ngi koy def euh, noonu ba Soudan comme ni ñu ko jotee wax ni te loolu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne bëgguñu sunu ñu ñu ñu yeewu du ñu dimbale ci loolu ñun ñooy xam pour def ko ñun ñoo koy def loolu nag lii lay lii loolu lay jàngale ñu xam ne lu mun a lekk la li tàmbale la donc dana mun tax lu mel nii ak yenn yu xaw a mel nii yoo xam ne même bu dul si Cheikh Omar si yeneen góoru yàlla yi nga xam ne jóge nañ ci ñun ci suñuy askan ñu ñu ñu mën a saytu seen liggéey pour mun koo intégrer pour mun mu mun a bokk ci suñuy li ñuy jàngal suñuy doom pour former suñuy citoyen loolu daal moo daan euh, jàngat bi nga xam ne jot nañ ko def fii. léegi monsieur Ablaye dañ lay bàyyi dañ lay bàyyi. djegal si wàllu pulaar ba français bu fekkee tuuti rek mënoo hmm. li nga wax fi yépp résumé ko da nga xaw jaxé ba lo loo rek bu ñaar ñaari minute la sax hmm. ñu xamné fi lañ nek ku ñu kaar yu mel rek lo ci am rek baax ah, ah euh, merci beaucoup euh, Bachir Sow nous sommes euh, Bachir et Zakaria nous sommes aujourd'hui ici à Konyakari pour les besoins de la ziara de la 22e édition de la ziara de Cheikh Omar Konyakari est une ville qui se trouve à 60 km de Kai, euh, la, région, euh, la, capitale de la région ouest du Mali, euh, qui se trouve à 93 km, se trouve à 93 km de la frontière avec le Sénégal d'Iboli. Et ici, en 1855, Cheikh Omar y a érigé une forteresse qui a été construite par un, par un maçon qu'il était allé chercher à Saint-Louis et qui a travaillé avec 1200 personnes sur le chantier pour l'ériger, euh, pour pouvoir euh, protéger ses troupes à l'époque. Et c'est une forteresse qui a, été euh, classée patrimoine mondial, patrimoine historique mondial. Et aujourd'hui, depuis l'avènement des IARA, avec, la 22e édition aujourd'hui, l'objectif principal est de sauvegarder ce patrimoine. Et ce travail est en train d'être fait. Pourquoi Pour permettre de maintenir et de préserver notre histoire, parmi lesquelles euh, euh, une histoire à laquelle a énormément contribué un fils du Sénégal, un fils de l'Afrique, Cheikh Omar al-Fouti. Cheikh Omar al-Fouti qui, a, qui a fait le tour du Sénégal, tout où vous vous rendez au Sénégal, vous aurez l'impression qu'il euh, est de cette localité, que ce soit au Fouta où il est né, à Djourbel, euh, dans le Mour, euh, dans le, dans le Fatik, dans le Saloum, en Gambie, en Casamance et, dans la région du Bundu, au Sénégal oriental. Et même dans d'autres pays africains, comme la Guinée où il a érigé sa première Zawiya, et ici où il a où il est passé en érigeant ce tata de Konyakari, où il a prolongé pour aller à Nioro du Sahel, où il a poursuivi son chemin jusqu'à Bandiagara, où il a disparu mystérieusement dans les falaises. Euh, donc aujourd'hui, nous sommes heureux que cette, cette puisse être organisée euh, euh, pendant 22 éditions. Et aussi le plus important, il y a un travail de restauration de la du Tata, de la forteresse qui a été entamé par les, populations et les talibés qui sont éparpillés à travers les autres pays, les pays de la sous-région. Donc il y, a, il y, a, un projet qui a été adopté par le gouvernement malien pour euh, la restauration, mais qui a traîné en, en longueur. Et finalement, les talibés eux-mêmes se sont dit, si on ne fait rien, le Tata risque de disparaître parce qu'il y a une agression avec l'érosion hydrique du côté, du côté est de la forteresse. Et ce travail a été mené. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Je crois que la forteresse est définitivement euh, protégée. Et donc, il restera maintenant à entamer le travail de restauration pour recréer à l'identique la forteresse et pour permettre de la préserver de manière définitive pour que ça puisse entrer dans notre histoire et qu'on puisse l'enseigner à nos élèves, aux tout petits, jusqu'aux universités pour qu'on puisse préserver et montrer cet exemple de Cher Omar aux générations actuelles, mais également aux générations futures. Merci. Merci, M. Abdoulaye Barry. France